candidature yi am na ñoo xamante ni mën na noo bokk ba léegi gannaaw ñetti fanu saytu conseil constitutionnel am na fukk ci ay mbër yu mu wax ni dañu war a defaraat seeni parrainage ngir mën a bokk ñu mën cee lim Pape Djibril Fall Idrissa Seck wala sax Aliou Mamadou ja ñoom nga xam ni jàll nañ démb ci talaata ji tey jii ci àllarba ji Mouhamadou Boun Abdallah Dionne ak Mamadou Lamine jàlloo nanu delloo ngir ñu defaraat seeni parrainage. biñ ko saytoo gis nañ ne li ci ëpp nañ ko. li ñu manqué lu tuuti la loolu ñuy woowee dublon externe mooy li nga xam ne dañ ko ñu yeneen candidat donc loolu fu mu toll loolu la ñu war a mottali loolu lu ñu war a mottali nag juróomi jun juróomi junni euh, parent la ñu war a indi dolli ko ci pour mëtal li nga xam ne moo ñu manqué. ñu dolleeku ci candidat yi nga xam ne seen bokk wóoragul ànd ak loolu Alioune Ndiaye des di dundee yaakaar. yaakaar nañ ne dinañ ko mën a mottali si nu mu gën a gaawee et que incha allah ñu dem ci élection si jaam ak salaam. lenn ci coalition yi nga xamante ni dàq nañu seen ay parrainage wàcc nañ ci terrain bi ngir wut ay remplacement moo ne dig bi leen loi électorale bi sàkkal muy ñaari fan mënul tàmbali lu dul ni dañ leen notifié décision bi ba noppi.